ànd ceeg El Hadj Ahmed Aidara bismillah bakkan rotati na ca Kédougou gae laas ne goxu Kédougou goo gae a démb dee jàppal bàyyil gu tar goo xam ne kon moo fa amoon maar day taali ba sax bakkan kon rot na fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ceekutaa sidibee la xale bi kon di wuyoo moo ni muuma la de waaw dañu koo jàpp kon torturé ko dóor ko ba mu jaare ca kon ñàkk bakkanam ca kenn defu ko kon ku dul takk der ya di gendarme ya ñi ngi koy laam-laamee de amoon na kon ay sàndante xeer yu mittee mitti waaye itam li nga xam ne kon moom la ñu nemiku nii yaakaaroon nañu ne lu ni mel kon jeex na ci réew mi kon ak nguuru Macky Sall gi lee tribune yéene kaay ne maa leen di nettali kon histoire ba kon nam fa demee waaw waaw moom Kétuka Sidibé mii dañu koo teg loxo te nee nañu dañu koo fekk kon ak seen bar de wàllum dorog waaye itam mu yor kon yamba di chanvre indien ginnaaw nag bañ ko tegee loxo daal mook ñaar ci ay waxambaane la ñu jàppandoo kenn ki Balla Sidibé lay wuyoo kenn ki Bamboudou Madi lay wuyoo kuréel yi nga xam ne nag ñooy yëngu ci lu jëm ci wàllum àq ak yelleef ak doomu aadama naqarlu nañu maanaam jàppal bàyyil ko mitti gi nga ne kon ak toroxal doomu aadama gi lii duñu ko def sax ah. te gendarme yi nga xam ne kon ñoo nekk ca brigade bu Kédougou gée ñoo ko def ba waaja kon jaare ca ñàkk ba kanam benn témoin ab seede la ci laas ne Sina Sidibé fii la ko rayoon mbir ma kon mujjul fenn France dal di xiddeen waaw waaw ñi ngi ci 2012 ñu jël kon président Macky Sall yaakaaroon ne lu ni mel daal dootuñu ko gisati te Macky Sall nag maanaam la taxoon ñu fal ko bokk na ca yeneen ak yeneen waaye lu ni mel kon bu mu amati ci suñu tund wi le gendarme ci boppam ko fi ngir mu jàpp doomu kon ko ba mu ne tort mu jaare ca kon ñàkk ba kanam waaye gendarme itam indi wuñu indi kon ab désordre goo xam ne pëccaxoo maar day taali njabootuk Sidibé moo mais kon plainte le pays moo mais ñu ngi koy indi kon ci douane Ndakaaru gi la ngir autopsie bi la xool lan moo rey kon waa jile wa nga xam ne nag ñoo yeewoo ca Kédougou goo gae commencé na ñoo xoqatal kon kilifa yi xamal leen ne danañu defanteek ñoom sambañ leen ko kon ba mar day taali ministre de l'intérieur ne la ca war a am yëpp danañu ko def bu leen ca saxoon am xel ñaar lan nit ñi am xel ñaar kay mooy courant bi ko fe suba ngoon gu dégg bëccëg di xuy xuy xamat xamat tribune yéene ne waa Sénélec day tuumaal nañ ko kon daw ba le pays au quotidien ne njëgu courant bi dee seer gi nga xam ne kon seer na ko jéggi na dayoo mar day ci vingt la jógee dem ca vingt cinq de juróomi junni mar day taali na yokkute moom waxtaanee guñ ko sax yéene mi mel na ni kon nekk na dëgg góor gi Omar Diouf ne xam nga nii mbir mi di doxee bu yeboo rek ñu delluwaat kon cosaan jamonoy maam ah waaw commencé di taal nag léegi ay lampe pétrole ak a jaxalaat sondeel yi di taal kon ay sondeel di ay buusi parce que lii chef de famille kon mënu ku yor njaboot mënul fay kon ab facture courant woo xam ni ñaar fukki junni CFA la cent francs allahu akbar te yow yeneen dépense kon dikkagul ba léegi ni lee astu jaw mer na a dee ah waaw na xeetu yéeg goo xam ne jéggi na dayo ndaxte facture am benn kese la la fayoon te facture bii juróom-ñetti fukki junni quatre-vingt mille francs kon fay na ko allahu akbar moom ndaw si yemu ca ndaxte sàkku na ci kilifa yi ñu daal di saafara bi nga xam ne mi ngi coupé suba ngoon gu dégg ba teg kon di xuy xuy xamat xamat yow courant na tàkk bo ndaw si le pays dajel nee na bi day moom nimmiku na ne yokk nañ ca kon juróomi junni CFA allahu akbar te yow courant bi coupé nii dellu siwaat na waaye yow lii daa safaano yow amoo ba pare sa facture bi lu ñu war a waxtaanee la la war a waxtaanee it mooy xam ne kon sàcc nañ ko yóbbu yóbbu ko ca bitim réew Jean Paul Dias ci tribune yéene kaay ne nguur gi nga xam ne kon moo fi nekkoon ñeenti junni ci ay milliards quatre mille milliards waaw sàcc nañu ko allahu akbar waaye sàcc yu ngand yoo jaaye dañ leen a kon war a teg loxo man Jean Paul maa ko wax bàyyi Barthélémy Dias kon yemu ca ndax nee bu doon man la denk dossier bii mën naa leen a giñal ne xaalis boo bee dana ñibbisiwaat kon ci biir réew mi Jean Paul Dias yemu ca nee na Sénat bii feebar yi diggante ñi nga xam ne kon ànd nañu pour ñu téyewaat fi Sénat bi ak ñi nga xam ne kon ànduñ ci ngir ñu téyewaat fi kon Sénat bi am na benn pétition di ab lettre woo xam ne kon nit ngeen koy signé ngir nga xam ne kon bëgg nañ ko fee bàyyi te ñooñee taxawal pétition bi nag mooy génération des sentinelles pour ñu ngi xamal ne waa m ci boppam ne xanaa ñu yi ànduñ ci dara loo wax ñu ne ànduñ xam ne ne Macky Sall la ñu fal te Macky Sall mooy tànn maître Djibril War day dàqul kon ñu tànn Arona Dia dénk ko Sénat ba maître Djibril War ci le pays au quotidien ne xanaa xamoo waa APR ak seen président bii di Macky vraiment joxe nañoo joxe joxe joxe joxe joxe joxe joxe ba am nañu nekk ci suñ biir parti sax dañoo mujj mer ba futtu laa la wax waaye Macky Sall ci boppam moo ñu yar rek ci joxe daal ak tabe Sall ngaari lam moo ne Macky Sall moo mais leer la wax mais Arona Dia sénégalais la temps APR la patriote la bàyyi ay banque mondiale ak yu bakkanee bakkane ngir dëkk fii ci réew mi le ñoom amaa dansaxoo xam nañu ko Babacar Mbaye nga rab ci laas ne sénégalais ci boppam ñoo bëggul kon sénat bi te d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg pour muy leer sénégalais nga xam ne jël nañu kon seenu alal seen ñax ak seen doole dépensé ko ngir assise nationale yi kon am ndam te assise nationale yoo jee dañu ne d'accorduñu ci wax nañu ko dindi waa léegi nag gis nañu ñenn kon ci ëttu politique bi daal taxaw fii di jéem a kon jam ak biir assise nationale yooyaay naan sénat bi kon nañ ko fi bàyyi ah Babacar Mbaye Ngaraaf yamu ca ndaxte nee na bu dee M23 daal defuñu kon seenu liggéey ñin danañu woo askanu ngir ñu jël Moustapha Niass Penda Mbow Amath Dansokho Abdoulaye Bathily nga xam ne dañoo am ci ñoom yaakaar lool yóbbu ci kanamu tribunal bi nga xam ne kon askanu yëpp mi lay jiite kon assise nationale ya sénégalais ñoo bëggul sénat bi tey te bëgguñ sénat bi ëllëg man Babacar Mbaye Ngaraaf maa ko wax man maanaam nga jox ma lim goo xam ni du dañ parce que oh oh waa yow